salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet lutte tv point com ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar jàkkaarloo ak Lamine Golo Lamine fay di entraîneur école de lutte Balla Gaye instant bi moom moo fa nekk di tàggat ñi nga xamante ne ñooy nekk ci écurie bi di ay mbër ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci bilan wu écurie bi sunu làmb door nag la doon xëccoo moo ko tere woon ne nelaw depuis bu mu commencé ak léegi waaye ren sax gën na ko sori ndax 15 combats lañ def 8 victoires 7 défaites moo tax ñu ñëw fas yéene waxtaan ak moom ci ténor yi nga xamante ne bëriwuñu gis ñu na Gaye mu bëre daaw lees de gën nañ ko gis soo ko sim amoon na combat mais corona bi ñëw tamit yàq combat boobu noonu ak Elton borom Maroc maa ngi nuyu bu baax di la ziar la men bàyyi la nga nuyu ñuy suivre Lutte TV. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la nuyu yow Lamine nii di nuyu waa Lutte TV yëpp di leen ñaanal seen site bi yàlla ko yàlla def mu doon site bi nga xam ne nii chaque jour day doon numéro un rek ndax wax dëgg yàlla yow moom da ngay jàpp ci làmb. te da ngay doxal làmb ndax coono yi ngi ciy daj yëpp li ma lay ñaanal rek mooy yàlla na la si yàlla fay say coono waa di nuyu rawatina waa géejawaay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp waaw. ok am na solo ci bilan bi la ñuy njëkk a ñëw. 15 combats ngeen bëre daal. waaw 15 combats lañ bëre. 7 vic 7 défaites. 7 euh, victoire 7 victoire lañ am. 8 7 victoire 8 défaites yi kay ñoo moom. 8 défaites da ngeen a tegale 7 victoire. dañoo tegle 7 victoire. mais huit défaites après lañ teglewaat. lan moo waral loolu liggéey bi da ngeen a commencé woon teg seen tànk wala. waaw tamit waaw loolu am na solo ndax man ren dama jëloon décision boo xam ne si équipe bi dama ne mbër mu ci parewul doo bëre yàlla def euh, sept victoire yi njëkk am mën naa ne ñi ko am ñëpp dama hivernal ak ñoom dañu ko préparé dëgg sax combat yooyu dañoo liggéey liggéey yu métti ñëw bëre ko affaire coow bi tàmbalee yokk lépp tàmbalee ñëw mais teewul amaat nañ si yeneen combat yoo xam ne am na si ñett ñoo xam ne mën naa leen citer sax lépp lu ñu waroon def si liggéey bi def nañ ko mais ndogal moo ñëw lu ñu naan tamit nit jaam moom demam rek la xam mais xamul dëppam mais lépp lu si waroon def nañ ko mais xëy na defet moo ñëw waaw. mu ñett ñett mu ngi mel ni ku si mel ni Diaw 2. Mhm. Arlem ak Boy Garga 2 ak Ibrahima Ladior. Mhm. Mhm. maanaam li ñu waroon def def nañ ko. lépp lu ñu waroon def def nañ ko xëy na defet moo ñëw rek. ba ñàkk seen i combat. waaw ok victoire yi ngeen yi ngeen yi ngeen am. kan kan moo ko moo ko. sept victoire yi soo xoolee bari na ndax soo xoolee même Lat Dior moom ma lay wax daan na ci moo daan bi ouverture saison bi daan na si Unca ak ñeneen ak yeneen boy yi ñoom ñëpp ay boy yi Bébé ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp bëri nañ ay làmp Balla 3 boy yi daal woy Bébé Less mooy rakku Less 2. waaw non kooku caatu Daouda Fall la moom amoon na combat moom moo waroon bëre gaaroo gaar bi ba combat bi des euh, ay 4 jours 5 si la papa ji gaañoo. si la si la ko John Kara jëlee. wax dëgg yàlla moom it làmb jooju muy làmb joo xam ne nii mën nañu jàmbaaram sax moo ko tax mu jëloon ko si làmb ju des trois jours yoo xam ne dem nañ bañ ne ginnaaw suba la combat bi ñu koy doog a jox avance. Mm-hmm. Mm-hmm. école de lutte Balla Gaye waroon na bokk ci écurie yi nga xamante ne chaque année mais rare na ñu gis ko muy ñëw nekk numéro lan moo tax loolu. waaw tey jii comme li ma doon wax rek école de lutte Balla Gaye xëy na dañoo am léegi ay failles yoo xam ne dafa mag ndax turu école bi yaatu na torop mais encadrement ba lañ foog ni moo nekk si école bi. amatu fa surtout amatu fa. ndax école de lutte Balla li muy rëy rëy yëpp mën naa ne soo xoolee Lamine Golo rek moo fa nekk man mii ak mbës mi nga xam ne nii moo ma doon jàppale si liggéey bi père Balla ñëpp xam nañ ni mag la te feebar na te mënatul yenn yi mais soo xoolee staff zéro si écrit bi. Mhm. Mhm. lan moo lan mooy pexe ci loolu est-ce que loolu jotul ngeen jóg ci. Mhm. ngeen am ay entraîneur ñi yore physique bi ñi yore boxe bi ñi yore côté technique waaw loolu tamit man mii dama ko jooytu ba sonn ne man mii soo xoolee booy suñu amee combat man maa leen di takkal gant maa ngi si diriger physique bi maa ngi def lépp loolu xam nga benn nit mënu ko si loo xam da ngay ñëw plus de cinquante booy wala soixante booy ñëwandoo nga bëgg a defandoo loolu lépp day metti mais tey ji école de lutte Balla Gaye fukki âge juróom def nañ ko mais suñ falee poste yi ba pare boobu la fa nit ñiy gëj ñun ñi nga xam ne yàlla moo ñun nattoo ñu bëgg gëm si liñ nekk rek ñoo fay nekk chaque jour mais tey ji mën naa ne école ba lii lépp si amee tamit wéetaay rek moo ma son wéet la rek mm. wéet la mm. te teewul ya amaat beneen affaire boo xam ne nii am si booy yoo xam ne nii tey ji mën naa ne suñ dee booy cinquante dix booy ñoo ci am ambition bëgg directeur technique kan la hmm? non équipe bi Père léegi comme ñëwatul mënatul ñëw ndax dafa feebar. Mhm. amul remplaçant. amul kenn déggoo li ma la maa fay nekk maay def lépp lu war rek man. maa koy def ko yore. physique maa ko yore maay maay takkale gant boxe lépp. te loolu dafa metti non man waa loolu dafa metti dafa metti metti boo xam ne dama ne la amul rek moo ci si bàyyi man kon sinon heure bi dama naan man mënatuma quoi. Mhm. Mhm. ok am na solo léegi gis nañ tamit bi saison bi tijjee gis nañ Balla Gaye commencé woon na ñëwaat. di épaulé booy yi. Mhm. ban moment la arrêté waaw non Balla Gaye moom soo gisee bi saison bi ubbee moom lees de ñoom si ñoom ñëpp tàmbale woon nañ ñëw. ñoom ñëpp ñu ngi doon ñëw parce que Elton ak ñoom ñëpp mais soo xoolee Elton sax jot a ñëw mais moom woote na chaque jour mu ne tey suba tey suba xëy na ay nekkoon ci liggéeyam mais Balla Gaye 2 moom tegle na lu mu bon bon benn un mois boo xam ne chaque jour mu ñëw ko. lees de moom chaque jour muy daaw ren ak daaw jéeg bi école bi met sax lees moom chaque jour mu ngi ñëw di jàpp si liggéey bi. léeg mu toog chaque semaine sax dina ñëw ñaari yoon sax wala benn yoon di ma jàppale si liggéey moom su musaan ñëw sax damay dem toog ne ndax dama daan sonn dama daan yàkkamti léeg-léeg ñoom ñu ñëw ñoo toog fee mais ñoom sax par contre léeg-léeg dañuy mer parce que dañuy xam booy yi fi nekk daa am ñoo xam ne ni bëgguñu dara te dañuy yàq travail groupe bi sax ba ci Balla Gaye ren gii rek ñëw na ñëwati bi ñuy commencé yooyu yëpp mu ciy jàpp ci liggéey bi moom ñoom lees ak ñoom mais ñoom si boppam dañ daan toog xam ni fii école bi pour ñu amaat fi beneen Balla Gaye 2 wala beneen wala beneen Elton du yomb parce que boo du euh, parce que booy yi feñaak nañ. nee naa la booy suñ dee cinquante su ma neexoon ma limal la sept booy yi nga ciy teg ñoo xam ne loo leen teg duñ sëqat mais ñi si des ñëpp physique bi su mettee sax nga gis leen ñu ngi toogi nee bàyyi te loolu du yoon. est-ce que loolu yoon la tamit. non école bi loolu la xamul woon. la mu dul bi géejewaay war nañu am yoo hmm. xamante ne tey mën nañu mën a remplacer Balla Gaye 2 war nañu mën a remplacer Lac de Guiers ak ñeneen ak ñeneen. non ñoo waaw mën nañ koo am mais gëm naan du yomb pour ngeen am relève. du ñu am relève boo xam ne day mel ni ñoom Guy gi Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 Elton Les 2 Abdou Diouf Alioune yooyu du yomb parce que booy dañoo teel a ñeer du champion da ngay gis ku si daan combat benn combat ñaari combat sax su dajee yow si mbedd. di xaw war laa déglu sax laaj la nga conseillé ko mu ngi aj dënn di xool di dina jaay affaire de jikkoy mbër man duma la xool sax fële laaj seen baay la nga romb dem. Mm-hmm. booy looloo leen sonal biir géejawaay. lan lan moo leen wutale ak Balla Gaye bi mu bi mu tolloo ak ñoom bi mu bokkoo ak ñoom catégorie. non néew ma la Balla Gaye sax dama koy jiitu si man ñun bi ñuy bëre dañ doon tarbiyu dañ doon xool ñu ñu magal si làmb chaque jour ñu leen di déglu muy Balla gay 2 di lees 2 El Tono ñëpp di déglu mais booy dégluwuñu kenn booy boo ci wax ñaari baat ñetti baat sax biir géejaay mu wax mu xoolee la bëtu kii dafa maa bañ wala kii dafa soof wala kii dafa def lii parce que li làmb laaj xaaj bi yëpp suñu dee 50 laa la wax set ñoo ko ciy dundee ñi si des ñëpp dundewuñu ko ñoom daal làmb li ñu siy bëgg mooy am nañ benn tour man maay diw man maay nii mais làmb dëgg mbër li mu laaj dëgg booy duñ ko def dundewuñu ko. tànnal ma cinq personnes yoo xamante ne ñu ngi ci écrit bi. wala loolu bu nekkee du ay tamit ma bàyyi la cinq personnes yoo xamante ne am nga yaakaar ni même bu dee métti sax dinañ demaat ba ba ba yëkkatiwaat écrit bi. non damay bañ ñu catu teel leen a catu damay bañ ñu teel leen a sóor. ne man mii rek xam naa si làmb lu bari xam naa booy dem ak ñu dul dem tey jii Père Balla daf ñu ko daan wax ñun fekk boobu matoon nañ cent ñun ñëpp mun nañu yéen ñëpp mënoo leen nekk mbër hmm. boobu ñun ñëpp ngi bëggoon mais su waxaan loolu ñëpp ay ciipatu ñii di dem moo tax te moonte mu doon wax yëpp am na dañ ko daan mu ne leen yéen ñi ñëpp ki ngeen foog sax mun na bañ a nekk mbër te loolu lépp gis nañ ko tey jii kañ ci foogoon ñoom ñëpp tey jii xalaatuñoo na est-ce que xam nga ne lees est-ce que xam nga lees de gënoon tësi làmb moo gënoon a tëb Balla lees moo gënoon a tëb Balla Gaye moo commissaire géej moo ñu ci commissaire bi sotti Balla Gaye gàllaaj waaw xoolal mbapat buñ musaan dem moog lees ñu finaalu ku ne ma woon man lees de tey jii balagay du topp si ginnaam du ma déet mais sunu borom mooy dogal hmm. Balla Gaye tamit doonoon koo xam ne yaafu sul quoi même suñ ko musaan daan mbapat sax wala mu dina ko jooy jooy yu metti nga xam ne kii dafa am loo xam ne gëm na ko lees de mbapat bu ñu dem macha allah jël na ko wala mu finaalu ñun ñëpp moom lañ ko tegoon mais sunu borom moo moo xam li ko xam ne ni moom la neex moo moo koy dogal mais man lees ku ne ma woon heure bi duñ ko dégg fa ñuy dégg gars yi du ma ko gëm. kon yéen bi ngeen ciy toll bi ngeen di soog a départ na ngeen foogoon ni champion bi lees lay doon lees de lay doon mosu leen am yaakaar ni Balla Gaye mii war naa mën a doon champion ci bind bi ci bëre bi. ankay boobu Omar xale la wala bëre ko woon boobu xale la. ok boobu sóoruñu ko woon Omar boobu xale la. xale la woon mais boobu sóoruñu ko woon ndax lees moo ko mag. dañ ko sóorul woon mais ndakate moom la suñu borom def ni moom mooy nekk numéro un par force kenn mënu si dara mais côté technique doon na wane loo xamante ni doon na leen yéem Omar moom bëre bi mën tey jii jàngal nañ ko ko tuuti rek mais don la may gu yàlla la ko wax Omar moom bëreem tey jii mën naa ne xëy na am na lu mu jàng am na lu ko père ba la moom mais lu bëri don la ci moom la quoi mhm. si moom mhm. Mhm. mooy Messi loolu la mooy Messi waaw moom mooy Messi mais man man Chris mooy sama fan su quoi man su ma doon wax dama naan mooy Chris ah waaw ah. mooy Messi ah, kon Gris mooy Chris. Hmm? non Gris Bordeaux ban Chris Gris di kii. Mbappé no giri Gris Neymar la daa gaaw a daanu. Neymar la ok am na solo.